avec le président la cohabitation xanaa su boobaa Karim Wade day nekk premier ministre. absolument ah. absolument loolu mooy mais yéen da ngeen di gaaw a fàtte mais bi ñuy dem élection présidentielle xam nga man dama doonoon candidat avant may désister ginnaaw bu ma discuter ak président Macky Sall. mais dama waxoon ci jamono yooyu ni leen man su ma gañoon élection yooyu Karim Wade laay def premier ministre. pourquoi Karim pour moi réunir na toutes les conditions d' abord li ñuy wax li tubaab di wax des raisons objectives et des raisons subjectives. raison subjective moom sentiment la mooy lu ma neex yaa ma neex yaa ma neex bi mooy euh, Abdoulaye Wade ma jur dooy na ndam benn Abdoulaye Wade moomu Afrique amel ko njukkal buñ ko joxagul Sénégal amel ko njukkal buñ ko joxagul man personnellement man sama jëmmi bopp fi ma jaar ak Abdoulaye wadd yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér ba fii ñu egg tey su nekkee ci situation boo nga xam nii xëy na age parce que lépp luñ koy lu ko mën di nit di critiquer mooy mag la sant yàlla donc bu demee ba egg ci age euh, boo nga xam ni am na lu mu waroon a mën a taxaw di ko def te mënatu ko def man jàpp naa ne jaadu na man ma taxaw fa mu waroon a taxawu Karim Wade man ma taxawu fa Karim Wade fa Doudou Wade war a mën a taxawee Doudou euh, Karim te Doudou di sama mag moom it xëy na jusqu'à présent li ma yàlla may ci kattan au plan physique euh, wàññil na ko ko moom donc fa mu ko war na taxaw aussi man war naa ko man loolu c'est des conditions comme j'ai dit subjectives parce que ay sentiment la mais objectivement kenn du ni ma Karim amul xam-xamu doon premier ministre gis nañ ko à l'épreuve liggéey na ci réew mi assumer na fi ay responsabilités kenn du ni ma amul réseau relationnel parce que bu ñu wax rek te yàlla tax bu dee relation moom à travers le monde du lu ko kenn di du lu kenn di contesté li ci des mooy am na parti boo nga xam ni engrangé maanaam li tubaab di wax buut xam nga xamu leen buut mooy la racine principal hmm. fa mu egg ci biir réew mi bu dul parti socialiste beneen parti eggu ko fa donc toutes ces conditions boo ko réunir booleeg nag xuloo xeex jàppal yaa ma def lii maa la def lii yi nga xam ne amoon na ci suñu biir ñun ba mu indi yenn situation ci réew mi moom loolu fekk ko ci kon tey réunir na toutes les conditions pour mën a fédérer toutes les forces vives de la nation dafa ñu cadre bi ñu taxaw nii dafa dépasser mbirum parti politique toutes les forces vives la ñu wax nay syndicat nay société civile nay mouvement de jeunesse tout le monde la ñu woo autour de cette plateforme là boo nga xam ni mën nañu permettre vraiment ñu créer une alternative dans ce pays là créer une cohabitation pour la première fois au Sénégal donc dépassé na même les cas di wax nii yaakaar na ngeen ni mën na ne ndax yow ñii di doog a toog di wut majorité waaw nee nañu sax bëgg majorité moo tax premier ministre demul assemblée nationale réew mi li ñu xam mooy ku toog da ngay wut majorité assemblée nationale dem élection législative pour mën a gouverner à l'aise Ousmane Sonko mii dar euh, président Diomaye di dar manko bëgg ku yegg ci moom du loolu nga wax am na ci droit waaw naka la moom amee droit wut majorité keneen amul droit wuti majorité sénégal yi ñooy joxe te xam nga bu ñu demee élection anticipée avantage bi avantage yi dafa bëri ndax bu dëgg dëgg man d'accord dama d'accord ak ñoom parce que kuy gouverner da ngay am majorité bu la jàppale à l'assemblée bu dul loolu loo fa def du sotti loo bëgg a jàllal du jàll rawatina nag bi nga xamee ni ñi fa nekk ñi ngi naan la dañu indi motion de censure pour daanal sa gouvernement kon ku war toog ku nekk da nga war am majorité parlementaire maintenant xam nga réew mi bari na coow fi mu nekk bu ñu demee élection législative sénégalais yi dinañ nii ñun kat ñii ñoo leen fal yoon wi ñu aw doy nañu confirmer ko jox leen majorité à l'assemblée réew mi am stabilité dal am ou bien sénégalais yi ne ah ñun kat ñii bañ leen di fal la ñu yaakaaroon kat yoon wi ñu aw du yoon wa ñu yaakaar fii ñu aw kat dalul suñu xel du ñu leen jox majorité opposition la ñuy jox majorité bu ñu joxee opposition majorité opposition dina former gouvernement assemblée ba comme opposition moo fa am majorité dal dina am parce que assemblée bi dina soutenir le gouvernement terewul président ak ay prérogatives yi mu xam ne constitution moo ko jox mu ko ne di doxal réew mi jàmm am. ñu am beneen avantage boo nga xam ne pour une fois depuis 1993. danañu organiser élection nationale ci benn at muy député ak maire ñu organiser ko benn at jàmm am pendant quatre ans ku mënti gagné ñu bàyyi la nga gouverner mais li ñu nekkee chaque dix-huit mois élection am ci réew mi depuis 1993 réew mi dëkk ci campagne électorale permanente ku fi def résultat sax ay miracle la mais réunir ñu les conditions pour dinañ mën fi def résultat bu baax. ça nous plonge dans les 100 jours bu doon dañoo def élection anticipée tey lan nga yaakaar ne euh, moom la sénégalais yi di dogal di décider euh, par rapport ak li fi ñuy jot def ci téeméeri fan yi ñu nekk ci bopp réew. waaw xam nga xam nga ñun mënuñu. wax gis nga ne yëf yaa ngi ci raay. Euh, non nekkul ci raay bi non nekkul bi dinaa la ko lu tax xam nga ñun dañu bëgg toppatoo tubaab yi ci lu bëri. dëgg la tubaab bi am nañ lu baax waaye am nañ loo xam ne ñun ñoo ko gën pourquoi tubaab yi di wax 100 jours mooy li ma la wax ci njëlbéen parce que ñoom kañuy fal dañ ko jox lépp. waaw mais ñun dugg nañ ci 100 jours. mi ngi waaw moom laa lay wax nii xam nga mi ngi mel ni tey ñaari borom kër kii buy tëdd danaan jabaram dépense ngi nii am téyel ndaw si bu ko neexee 6 heures du matin mu jëm di jóg dem dem marché borom kër boobu bu ko neexee bu midi jotee mu ni ndaw si ana añ bi keneen ki bu xëyee. da koy lijjanti ci ci. léeg sax da ngay dem rek su dem bàyyi soxna si muy kooku amoo droit di imposer sa jabar ni ko midi añ bi dafa naaje loolu mooy suñ diggante ak Europe. ok donc ñoom. am nañ droit mais nañ ba dugg ci kay. waaw mais mais mais mën nañ ci génn mën nañ ci génn xam nga ñoom am nañ droit wax 100 jour parce que lépp mat na ci ñun. Hmm. ñun waruñu wax 100 jours parce que dara newu fi mbaa boog li fi manqué bari na bref 100 jours xam nga loo ci mën a def wane yoon wi nga jëm mënul def leneen. tey boo jëmee Touba Mbacke fii ngay jaar waaye boo demee bu jëm ñaajo def nii ah bu dee di nga egg Touba dina yàgg parce que da nga wiiri dem ba Kaolack jaari Gosa soo ko delluwaat. Ah, ñii téeméeri fan gis nga ne donc ci yoon wi ñu jaar. dama ci gis ay rëq-rëq. Ah waaw bi ci jëkk mooy li olof naan borom caq day moytu borom baatu benn yow mi nga xam ne yaa wax ba ñu jox la nguur amatoo droit ci ay discours. xam nga dafa am lu ma daan wax tous les jours wax naa la ko hors antenne dama koy répété fii kilifa du bari wax kilifa farata moo koy taxaw wax dañu war boo nee tëll ci télé bi taal sa télé gis ministre muy wax nga ni ah lu xew. Mm-hmm. loolu moo am solo. mais ministre du la te daal. te loolu loolu du rek régime bi dafa yàgg rawatina ñun ci suñu régime la gënoon a bare. régime social sax moo tane woon mm. mais li ma bëgg a wax mooy. xam nga ministre bi par exemple bu bëggee wax ci affaire wu ndox day woo directeur de l'hydraulique kooku woo ay techniciens ñu bindal ko ay fiches ñëw jox ko waaw lu tere ministre bi toog ci bureau bàyyi le directeur de l'hydraulique mu ñëw wax ci ndox le directeur de l'assainissement wax ci assainissement mm-hmm. le directeur de l'enseignement supérieur wax ci bac ainsi de suite mais ministre yi ñooy monter au wala premier ministre le président sax moom duñ koy dégg lu bari duñ bari ci ay donc li ci jëkk ci li may li may rafetluwul ci seen doxalin mooy wax nga ba ñu jox la nguur parce que effectivement wax mooy joxe nguur du ay yat du leneen wax nga bañ jox la ko liggéey